yow sama jigéen mbaa xam nga ni war ngaa moytu bañ a bokk ci ñi yàlla rëbb jigéen ñi yàlla rëbb ak ñi yonent bi rëbb ah seen àdduna yàqu na te seeni allaaxira it dana yàqu soo doon lim jigéen ñooñu nga xam ni yonent bi rëbb na leen ñii yàlla rëbb leen te ku yàlla rëbb dafa mel ni ku yonent bi rëbb ku yonent bi rëbb dafa mel ni ku yàlla rëbb ndax laan huwa tard min rahmatillah mooy dàqee nit jëlee ko ci yërmande yàlla yàlla nañ ci yàlla musal musal ci ñuy jigéen fukki jigéen a ngi nii ñoo xam ni sàggan nañu ba bokk ci ñu yàlla rëbb ñenn ñi yonent bi rëbb leen ki ci jiitu mooy jigéen joo xam ni lewluwaan la lewluwaan la ko olof di wax walla jigéeni lewal mooy mu xàllal la mooy ban jigéen mooy jigéen joo xam ni dafa sëy ak boroom këram déglu ma bu baax jigéen ju sëy tas ñetti yoon borom këram fasé ko ñetti yoon ki ñu fasé ñetti yoon bala anda ak jëkkëram bu ca bëgg-bëgg défé défé na ni il faut benen sey amat il faut benen sey amat il faut mu sey ak beneen su fekké ni sey nak benen goor ci yoon wu ñu yoonal ba tassat su boba lay mëna déllu ca kaka takkon ñun nag lu ñu koy wax ñun baara yëgoo ñii ne baada yëgoo jigéen ji sëy na ak boroom këram xëy na caaxaan na ba sëyam tas te bëggul bàyyi borom këram ñu ne ko sëy bi de tas na balaa ngay lewaat sa borom kër moom keneen jaar fi nga dem songu beneen góor mal ma ne ko di ko nax ba góor googu takk la te sa intention mooy nga sëyeeg moom sëyu contrat boo xamante ne kenn du ko bind yaa ko nar ci sa xol fas ko sëyeeg moom su ngeen sëyee un mois rek nga tàppaas ko mu fase la nga dellu ci kële jigéen dina waxtaan ak ci jëkkëram bu mu fase bu ko fase ci loolu ànd ci góor dina ko def jigéen dina ko def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne laana allahu almuhallil walmuhallalu la yal na yàlla rëbb góor guy baara yëgoo ak jigéen juy baara yëgoo ñaareelu jigéen baa ngi muy almaratu saaxitu alayha zawjiha mooy jigéen bi sàggan ba borom këram fanaane ko mere mooy ban jigéen mooy jigéen joo xam ni nekk naag borom këram lu nekk mu di ko yàq borom këram borom këram soxla ko mu bañ walla mu takk sërëm walla mu fayee bor guddi du xam ngeen fayee bor guddi mooy mere na jëkkëram jëkkëram jege ko mu dëpp wan ko gannaaw walla mu mel neneen walla mu layal ko léeg sax mu ne ko dama gis ngànt walla dama feebar walla damay nàngam lépp loo ngir bañ loola ci sababu mer sa boroom rëbb na la yonent bi sallallahu alayhi wa ne nee na bépp jigéen bu fanaan yow sama jigéen bu dee da nga ko doon def moytul bépp jigéen bu fanaan guddi borom këram teg ko loxo mu teggi walla mu lay ci loo xam ni dara amu ci borom këram fanaane ko mer mere ne malaaka yi ñu ngi lay rëbb te ñaanu malaaka moom yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nay jàmm yàlla na yàlla na nga rëbb diw yàlla yàlla na nga alak diw nga tëdd noonu nag def ko njàmbaar nga tëdd noonu def ko arme di ko xeexee fekk ndeke posone kenn sa bopp nga posone danga sotti sa bopp essence taal ko mooy ñaareelu jigéen bi nga xamante ni malaaka yi ñoo leen rëbb te ñaanu malaaka xam nga day am ñetteelu jigéen bi bokk na ci ñu rëbb mooy jigéen bi yokk kawaram moo xam mèche la walla perruque la wala cheveux naturel la walla lu mu takk ci kawaram loolu bu ko jigéen defee yokkee ko taaram ah bokk na ci ñi nga xamante ni rëbblu na boppam mooy ñetteelu jigéen bi ñeenteelu jigéen bi nga xam ni rëbb nañ ko mooy bi almutashabbihaatu biir rijaal mooy jigéen ñi nga xam ni dañuy niru niru li góor mooy jigéen ñooñu nga xam ni pantalon rek la ñuy sol li góor di sol la ñuy sol léeg sax ñu watu tuddee ko à la garçon ñoo xamante ne daray jigéen neexu leen lu góor dong leen neex àdduna bi tey nag àgg nañ foo xam ni léegi jigéen ñi góor ñi amatuñu col jigéen ñi dañuy sol yére yi góor boo duggee ci ote yi soo génnee foo dem même jigéen ji muuru bu deful ndànk dana dugg ci créneau boobu kon nag bépp góor boo xamante ni jigéen boo xam ne da ngay sol yérey góor wala ngay jëf jëfiinu góor wala ngay dox doxiinu góor ne yàlla rëbb na la yonent bi sax yonent bi rëbb na la juróomeelu jigéen bi nga xamante ni rëbb nañ ko mooy zawaaraatul qubuur mooy jigéen ñi nga xam ni dañuy ziyaare bàmmeel yi jigéen warul dem ci bàmmeel xadis bi ñëw na waaye am na beneen bu ñëw bu yaa Aysa ndax yaa Aysa dem na ziyaare frère am Abdourahman borom xam-xam yi ñu ne loola moo mujj lii ma njëkk wax waaye loola nañu koy déggee mooy bu fekkee ziar bi wajhu ziar la du bari su nekkee benn yoon ci at bi waru koo romb ndax jigéen bërëbam du bàmmel yonent bi ay aïcha nee na wala ibnu masud nee na inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam laana zawarat alqubur yonent bi rëbb na jigéen ñi nga xam dañuy dem di ziyaari ay bàmmel juróom neelu jigéen bi ñu rëbb nga xam ni kooku sax moo gën a doy waar ndax rëbbam dafa àgg ci yowmal qiyaam dañ koy xottil yérey ban yérey euh, ni ñu koy waxeeti goudron moom lañ koy solal mooy jigéen juy yuuxu néew an naa iha an naa iha jooy nag dagan na yuuxu moo xaraam koy sama ndeyoo kañ la ñàkk naa torox naa ay fu ma jëm ñàngal sa kar kanam yuuxu yooyu jigéen ñiy def ah, yonent bi sallallahu alayhi wa na borom bi day rëbb na loolu bépp jigéen bu koy def bu tuubul yowmal qiyaam danañ ko tabax taxawal solal ko yére yi betteex ak yére yi goudron yàlla nañ ci yàlla musal juróom ñaareelu jigéen gi mooy jigéen ji tatouage nga ne ah oustaz loolu garaaw na de waaye xew na jigéen ju xam alwaashimaat am na jigéen ñoo xam ne léegi su fekkee ni comprendre naa tatouage mooy def sa yaram loo xam ne ay puso lay doon ñu jam ko def ci ay dessin loolu ci xar ba la jóge ci noonu yàlla yi la jóge yàlla rëbb na jigéen ñi koy def ak ñañu koy defal juróom ñetteelu jigéen bi mooy al mutanammisaat mutanammisaat mooy xawma nu ngeen koy tuddee de mooy wat karawu yéen bàyyi ci as rëdd su ndawa ndaw wala wat ko ba mu set xaw ma épilé lañ koy tuddee xaw ma defe naa noonu la ko jigéen ñiy tuddee loolu daal moom mooy dindi kawaru yéen ndax jàpp nga ni kawaru yéen bi bu fi nekkee doo mën a faaru doo mën a rëdd mu rafet pour góor ñi duñ leen mën a xool wat ko wat nag lor sa bopp ci àdduna ndax mën na laa yóbbu ci silmaxa mën naa tuur ndoxum bët mi mën na laa fitnaal yonent bi lay naa mi sa wal mi mutanammisa jigéen ji koy def ak ka koy defal bu moroomu jigéenam su àggee nag ci góor di ko defal day dugg ci laan boobu juróom-ñeenteelu jigéen bi mooy al mutafallijaatu lil xusn al muxayiraati xalqallah mooy jigéen boo xam ne day dem ci dantist bi ne ko man samay bëñ dafa kadam su ma reetaanee góor ñi duñu kontaan dama bëgg góor gu ma xool nga barde léegi déplacé ma ko daggal ma ci sacré yàlla léegi nag docteur bi am ay pexeem ba daggal la loolu bu ko defee foo tollu di ceg-cege rek lu neex nga ree lu neexut nga ree loolu it da lay yóbbu ci rëbb googu moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla rëbb na jigéen ñi nga xamante ni dañuy def sàkkara yàlla te fekk àndul ak ñoom xam nga nit dina juddu am sàkkara yàlla mu rafet lool léegi nag nga bëgg a mel noonu nga dindi ko loolu mooy soppi mbindam yàlla almuxayiraati xalqillah fukkeelu jigéen bi mooy almutabarrijaat mooy jigéen ñi nga xamante ne moom catang catangi rek génn lu ñor ñu génn lu ñorul ñu génn ñoom daal toog ci kër yi waxuñ ci dara dara dara dara ba ñu jàngee alquran aaye ba leen gën a métti mooy waqar na fii na ñoom daal aaye boobu daa mel ni bokkatul ci alquran moom daal jigéen ñi daal mooy wa baraj na fi bu na rek génn leen bu leen toog ci kër yi te jigéen ci kër lay sakkane ci kër lay noppaloo ci kër lay muccee ci seytaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu jigéen génnee seytaane daal di koy fëkk gis nga nee na charru nisaikum almutabarrijat almutaxayilat wa hunna almunafiqat laa yadxulna aljanna minhunna illa misla alguraabi al asam nee na ñi yées ci sunu jigéen ñi mooy jigéen ñiy génn jigéen ñiy dox jigéen ñiy solu col ko gu bon nee na ay nafiq lañ duñu dugg àjjana lu dul lu tolloog liy weex ci baaxoñ lu xam ngeen baaxoñ day ñuul kukk benn tracé bu weex dong moo ciy am nee na lay dugg ci jigéen ñi àjjana boo tegoon baaxoñ ne mu ñuulee ñuulit bi yëpp safara la lu weex li loolooy dugg àjjana kon jigéen ñi duñ bëri yéen sama jigéen loolu noonu fukki jigéen la bu yaboo ngeen bàyyi ko xel àdduna àgg na ci yàqu foo xam ni dëgg-dëgg ku yabu nga góor góorlu ndax gis nga ni nga juddoo yow dong <laughs> noonu ngay demee de te noonu nga demee noonu ngay dekkee waaye waaye tabaxal sa kër ga ca ajjana bàyyi bii ci àdduna bii ci àdduna neexul tabaxal ba ca ajjana ba ca àjjana nag boo koy tabax dana metti waaye muñ ko yàggul la fi muñ loo yaa Aysa muñ loo fi yaa Sawda muñ loo fi jigéen ñu baax ñi ba ci suñu jamono bii am na jigéen ñoo xam ne ay exemple lañ yal yàlla melal noonu suñuy jigéen